Cheikh Bass ñu fekk la ci ci marché Bass nga am fii ñëpp dundee laa ko dundee gis na nga kaa na mais sant yàlla bu baax sant Ahmad Khadim bu wér te xam ne xaalis bi gaa noo ko mën liggéey mais mënuloo liggéey waaw ñu sant yàlla bu wér métti na trop moom si yàlla métti na trop. waaw fii mu nekk sama place si li nga xalaat. ah moom sax na pareet moom moom na trop moom fi nekkoon si yàlla mën ma kaa xayma xam naa ne bari si yàlla waaw ah, parce que war na ngaa ëpp sama xel bu gàtt moom. man yaakaar naa ay 4 millions daal xam naa ne yaakaar naa war na ngaa mat moom waaw ah, wax dëgg na ngaa mat. waaw métti na trop moom yàlla. ah sant bu wér sant bu we waaw ab jaam la de lu métti ab jaam la de quoi. mais xamoo leen lan moo ko taal. non nu ko moom xamuñu ko dama ñëw fekk mu tàgg moo lool comme ñëpp léegi nga ko yëgee moo loolu daal. man parce que ay deux heures yaa fi ñëw damaa damaa génnoon ay une heure ay deux heures sama benn client woo quoi di ma laaj ba xam dégg na marché bi da lakk muy ma laaj wax bokku si bokku ma si man nga man maa ngi ko doog a yëg sa yaa ma ko wax après boobu fekk ma nekkoon si yoon mais saa ñëwee saa fekk mu lakk ba jeex ñii waaw fekk mu lakk ba jeex ñii sant yàlla baax mais itam ñu ñaan euh, suñu président Macky Sall ñu ngi koy ñaan baax di sant suñu mbokki sa yi ma allah ay jàmbaar ndax depuis démb ay deux heures du matin ba léegi ñu ngi fi jafe-jafe mbaa ci buntu yooyu. non non loolu dañuy wax loolu moom wérul moom ndax tëri bi c'est guddi man dama bokk naa si ñun suñ mujj wàcc soo ñëwee tëri bi dafa lii wul ñaari kaw yi mën nañ fee doy moo tax euh, mënut a fay mais du questionné euh, mbaadeeg yooyu andiwu non non gëmma loolu man waaw maasàllaa boobu lay fay noonu sapol yi ñoo fi ndaw ndax parce que dëkk bu toll nii Touba deuxième capital war na am deux cas sapol ba trois ndax yàlla bu mu am tey su dëkk bi amoon ñaari jëyee ñee dem fee ñee dem fee mais aussi gouvernement benn kaasapor mënut a fay masse aw kaas xam naa ku ko xam ne masse bu lakk ni mu mel ah masse yàgg naa lakk ay wen quatre vingt quatre du fay kon boog yaakaar naa loolu moo tax mais du mbaari quoi. waaw te ñun wax dëgg yàlla damay dégg si rima yu gàtt naa ambilamaa ni dañoo xata tëli bi mais kenn xatul tëli bi tëli bi mi yaatu atu bi fi aw bëccëg naa jàll bi fi aw guddi naa jàll ñun nag tëli ndaw lan nu bëggunu bëggunu dërëmu kenn dañuy liggéey daan suñu doole quoi comme loolu suñ ñëwee tëli bi bii te tëli bi atu yaa ngi jàll ñi ngi dem nañu bàyyi ñu liggéey ndax comme par exemple maa ngi dégg bëkk démb ñu wax suñ bi wax suñu am solo si ndaw yi dem si gàlle te ñun yàlla def na dem nu si gaal ñi ngi toog fii di liggéey amu lu dul bi kon ba maa dégg tey journaliste bu la laaj ginnaaw yàlla loolu la laaj si télé bi yéen xatal ak dañuy jaay place te fekk li ñuy wax lépp amul ndax ma lool maa ngi fi mais dund ma loolu quoi te yaakaar naa sama morom yi fi nekk itam dund na loolu waaw na trop ndax loo xam ne ba nga koy liggéey ay jun ay déwi déwi na nga liggéey ba mu tooñ mi loo bu xëy xëy dem métti na mais sant yàlla bu wér ñu ngi sant bu wér woon waaw côté Darou man si xaw baale wala Darou Mousty daal soo weesoo foofu la rek damaa ñëw fii pour liggéey si daan sama doon dafa bàyyi sama waajur dem di leen tere quoi. sama yaay waaw xam na xam na mais parce que waxuma ko kaw si yaay ndax moom tam dafa nekk si feebar xëy na dina ko yëg sax mais daan jë pour man jàpp naa jëru di wax yenn wax yi quoi dafa si yaay ay góoraan ñu ñëw mën a ngaa seere quoi waaw alhamdulilah baal na ko jaayee